ville de Dakar commune Yoff commune Barni, Dakar Demdik. Dikk confection Warf CO Access Global nous sommes Sodan TV c'est 144e au Seydina al Alehi alayhi salatu wassalam. Un appel retentissant, jamais lancé par un être humain, depuis Seydouna Mohammed L'histoire nous a pourtant enseigné que des individus, au Moyen-Orient, voire en Afrique, ont prétendu être investis d'une telle mission divine. Et si de nos jours, des musulmans guettent encore l'apparition du Mahdi, c'est parce que de nombreux exégètes l'avaient prédit. Le prophète lui-même en avait fait la confidence à ses compagnons. al mahdi minna yurtamu bihi din le mardi fait partie de nous, c'est par lui que la religion sera clôturée comme nous l'avons nous-mêmes ouverte. Le mardi attendu est déjà apparu et a laissé derrière lui une communauté adossée au culte sincère de Dieu. Une communauté d'hommes et de femmes, les partisans d'Allah, les laïens. Ils sans sempiternellement la formule d'unicité de Dieu. La pureté de leur foi sera à jamais symbolisée par la blancheur immaculée de leurs atours. Adibo Dayala répondait à l'appel du Seigneur. Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu eh, di leen di gërëm di leen di sant ci déglu bi ngeen di déglu wala di seetaan bi ngeen di seetaan Soodaan eh, TV ñu nekk nag ci wattaayu anniversaire muy téeméer ak ñeent fukk ak ñeenteelu anniversaire woote gën mi def alayhi salaatu wasalaam ci premier journal de l'appel bi ñu ngi nekkoon nag ca Cambérène eh, foofu nga xam te ne moom mooy première étape ci commémoration appel bi ñu nekk tey jii nag ci Ngor fi nga xam te deuxième étape bi ginnaaw nag bi nga xam te ne ziar nañu sang bi nga xam te ne moom di toog na le di Chérif Abdoulaye Thiaw ibnu Seydina Mame Alassane Lahi ibnu sahibul kiram ibnu imaamullahi alayhi salatu wasalaam moom mi nga xam ne ñu daal di dalal fii la ñuy di euh, wax li nga xam ne moom fës ci bop xibar yi muy caravane wote bi nga xam te ne waa Bargny daal dinañ ko amal ni ko ci dimanche bi euh, dinañ ci dik dik tamit ci kàddu yu tukki ci euh, Daouda Mbaye mi vice président comité d'organisation appel bi ànd kilifa yi ñu daal di xool sànq yi ana fan la daal di toll Chérif Alassane Diop Lahi di secrétaire général vision 129 yëkkati na jëmale ko ci wasaare euh, lii di woote bi ca bitim réew euh, dinañ daal di ànd ak Chérif Ibrahima Lahi ibn sëriñ Cheikh Mbacké Lahi ci liggéey boo xam ne boo am solo la yoo xam te ne tàmbali woon na ko ci première édition bi tey ji ñu koy daal di topp ànd ceeg euh, Serigne Atou ibn Serigne Malick ibn Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye ak waqfu di sadaxa jariya mën ngeen cee soppi dunduk ñu bari fu joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su nekk wakfu di lu ku tedd ki seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle dib sarax bu pay gala ci suñu borom di fay di wéy ginnaaw sax bu dëddu àddina kon def leen wakf ak application orange money bi bu ngeen duggee ci paiement dem marchand laata ngeen di dugal code bi di 34 85 39 teg ca koppar ya ngeen fas yéene def wakf wala ngeen dem direct seen téléphone ci dièse 144 dièse 5 étoile 34 85 39 10 wala it ci plateforme bi di 3w point wakf sénégal point com mën nañ koy ci compte bis bi di SN 079 01101 251 080 486 002 39 man ngeen nit tàbbal ay wéccit wala billet xaalis ci boyeti condamné yi haute autorité bu wakf sànc ci supermarché yi ci banque yi ak yeneen place su mbooloo yi xaalis bi ñu dañu koy def ci caisse gu mag gi état bu sénégal taxawal à atum 2022 ak léegi ngir ñepp mëna a def seen WAKF ak lu seen poste. mëna a toll ngir ñepp jot ci tiyaabay wakf boobeeg wakf état Sénégal yaatal ba ci ñepp ci financer ki ay projets WAKF meñ jaaré ko ci ay investissement yu dagan ci ci yoonu finance islamique bi financer ay programme yo askan jotul mbokk yi comme ni ñu ko waxee rek ci bopp eh, xibaar yi waa Bargny rawatina mouvement des de amal li nga xam te ne mooy caravane siiwal woote bi dugg ñu ya, ya di ko def at yi weesu yëpp ñu ngi koy daal di def wër gox ba ngir siiwal li jëm ci anniversaire bi ak Yahya Lahi image yi nga xam te di baaxee. déggu ma la Amar déggu ma la. fi ñu ko waxee baax na la samp na teeri. waaw na teeri fii baax na. bu daa ñun bu daa ñun

bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wa sallallahu ala rasulillah ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaaraat ñëpp di njëkkee nuyu ak ziyaara sunub sanga sunub xalifa Seydina Mohamed Makhtar ibnu Seydina Mandione yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak ahlu béyti bi yëpp ak i rakam yëpp également ñu ngi ñëwoon tey si cadre préparation appel bi mu amoon benn étape bu am solo si feuille de route bi mooy visite euh, des sites coordonnée par le euh, préfet ñu ngi àndoon ak préfet de Dakar Euh, accompagné pour Cambérène sous-préfet bi bi polarisé Fofou Yoff également sous-préfet Almadi également également pour euh, Cambérène euh, commissaire parcelle pour yof ak Ngor commandant de brigade bi ak ak kilifa gi nga légion bi envoyé And également ak Giroud, à ànd également à waa ONAS ak autorités sanitaires UCG également suma faté wul kenn ak wa service d'hygiène ak cadre de vie également manam service yeb ak colonel bi xamné mom moy colonel Diop xamné moy superviseur opération de désencombrement yi ñu and ak ñoon ñep nak ngir mëna def nak visite de site yi xol luy suñu jafé jafé par rapport intervention service état bi ci yoy yëpp yi ci ëpp solo té gëna bëri problème moy li concerné Agirut ak euh, onance manam assainissement ak euh, travaux routiers par rapport à ñaar comme nous ko doon rek travaux d'entretien courant yi xool nañ ko bu baax vraiment am yu commencé am yo xamné commencé gul mais amna ci assurance inshallah, que dinañ ko tàmbali terminer ko avant appel désencombrement bi inshallah euh, préfet dina jël à disposition en relation avec le colonel Diop qui est chargé du des opérations de désencombrement sur axe de voie ou Cambérène ak également axe yu également par rapport ak euh, euh, parking Adama Diop bi désencombrement également dañ ko sentu ci parking euh, frigo bi je pense yooyu mooy désencombrement yu yu mag dañ ko programmer incessamment bëgguñu ko téla def parce que dañuy bañ teel ko def mu amat occupation anarchique donc dinañ ci taxawat inshallah travaux d'entretien courant agir ONAS ñu japp dal né lepp liñ ci war def dañ ko def maintenant li ñuy faral di wax yi nekk ci document bi té té laaj ay ay liggéey yu diis daañ tax ñom dans le cadre du comité de suivi le préfet a déjà pris les arrêtés

si coordination gouverneur et préfet waaye ak service déconcentré yëpp yoo xam ne ñoom ñoo si am ay euh, ay ay pàcc si liggéey yooyu ci loolu nag ñuy travailler en étroite collaboration ak comité locaux yi bi biñu demee Cambérène mm, waa maire bi adjoint maire ñëw na fa ànd ak également waa comité local bi pour Yoff également maire bi si boppam déplacer wu na

ak Alaaji Pël également mi ànd ak ñun ci wàllu protocole. Dem plus qu'un patrimoine. ak Dakar Dem Dikk fësal leen seeni produits ci sunu ay bus muy si ak sunu écran embarqué wala sax ci biti sunu ay encart publicitaire Vous leen nak visibilité bu mat seuk lañ leen di defal ndax yile bus fay daw ci Dakaru, ci bi réew mi ak itam ci sous-région bi kon nak gaw leen gaw wote ci sunu service commercial ci 33 824 10 10 33 824 10 10 pour plus de visibilité C'est une publicité à Dakar demdik ci njëg bu xéwale boulen ko kenn nettali demdik romb na comme ni ñu leen ko waxee woon Chérif Alassane Diop Lahi mooy euh, secrétaire général vision 129 euh, daal dina jàkkaarloog soxna Dali ñu daal di waxtaan waxtaan bu yaatu boo xam te ne dañ ci daal di dëkk tegal leen ko lépp ngeen daal di ko seetaan moom duñ leen jukkiloon ni ki démb tey ji ñu di jukki leen fi nga xam te ne foofu lay waxee ci wasaare di woote bi ci bitim réew ñu déglu Chérif Alassane Diop Lahi ànd ceeg soxna Dali Lahi mi taataan kaddu yi. bàyyi laay réglé woon na problème bi ginnaaw ba mu ne diine jën ndaw ak mag mu muusu lii la gisoon. ci ko itam gu mujj def ne fii ma tok ni ma borom muril na ma kiiraay yi li wara xew bisab tay ba keroog ba israfil la wal ci buuf tey man limaam laay xam na kon wax na ne li wara xew xamna ko non xamone ne ne ba jamono li wara accélérer liggéey bi moy nga meuna utiliser la jeunesse à bon escient buñu ko defulé liggéey bi day yex loolu tek fofu nak damay jël ben parenthèse bu ndaw nga may mako ngir sante al muqaddam ababakar bass di sama xarit di sama sama sama sama wëlëri wëllëre di sama confidence lu bari ndax yàlla dafa dogal il y a quelques années ci ginnaaw mu lancé euh, ce concept d' internationalisation de l' appel daal ci convier ñu bëri ci ay euh, mën naa ne ay personnes de ressources ci communauté bi ak ñu nekk ci diaspora bi mu nekkoon concept bu am solo malheureusement euh, affaire yi xëj na jamono bay jotagul ndax defoon na ci effort yu bëri yu waroon tax mbir mi dem waaye am na xëj na ay gàllankoor yu tax yeggul ñu ngi ko ci féliciter ci xalaat bi waaye di ko ci ñaanal pour yàlla gën ko ko yombalal ba meuna dox kon dal soxna ci ku si ne si ñun ñi gëm ne baylay moy mooy Rasulullah fil awwalina wa fil axirin war nañu xamne nous sommes responsables de l'exportation du message de Seydina Limamou chacun de nous mais pour que mu meuna réussir ci lu gaaw moy qu'il il faut qu'on mette en place une synergie des efforts les les, les efforts dispersés yi ñi def ni chacun de son côté lolu du yebbu wote fi mu war yegg li taxone mag ñi réussir la ñu réussir moy dañu booloo won ñoom ñi njabootu Baay lay booloo ak muxaddam yeeg kilifa yi kër gi di ay borom xam-xam loolu mooy leen réussite bi Baay Seydi caw ak rakkam yi ak ñi fi ne nii suñu woon def benn mbir te ànduñu si ak imaam Mouhamadou Saxir ku mel ni Baay Libaas Sall ku mel ni professeur Assane Sylla ak ñeneen si borom xam kër gi loolu moo may woon réussite bi tey nag borom xam yooyu dañu nekk ay jeunes yu am at yu néew waaye fa ñu ne dafa liggéey nekk fa ay kilifa yu mag ngir xam-xam ak seen xarañ mais communauté bi jëluwu leen boole leen si yëf ñoom ñu nekk ay talibé laaxatu tok liggéey seen liggéey il faudra faire en sorte de mobiliser toute cette ressource bi yàlla defal parce que lépp lu yàlla may ab jaam man dama gëm ne si barkeem Seydina Limaamu la ko yàlla maye te ñun ñëpp lu ñu yàlla mën a may mu néew mu bëri si barkeem la ñu ko maye kon on a cette obligation de de d' exporter cet appel là mais en mettant en place les bases qu'il faut pour loolu sotti. bàyyi laay del yu xoole ba xool seli xol géejawaay buuru réew maag sëriñ sa ñoom ñépp a yem ba fa limaamu laay bàyyi laay réew mi lu am si ay ngeneel fii ci saw bi la bàyyi ko fi bàyyi façon santalaay dàqantal si laay wala dunu am rirwaane laay Mamadu laay ne maa ngi giñ naan bilaay walaay maam li maa mooy rasoolu laay giñ du jaaxaan ca rabbana moo ka wax moom li seet Moustapha tëdd fa jàmmalaay Moustapha jërëjëf euh, sëriñ Mor euh, Lay euh, mi nga xam te moo daal di woy woowule ñu daal di nag toftal ci li ni mel lii di liggéey bi nga xam te ne Chérif Ibrahima Lay ibnu sëriñ Cheikh Mbacke Lay daal dina ko def lii mooy deuxième partie bi ginnaaw bi nga xam te ne nit ki démb daal di ngeen seetaan introduction bi muni mom moom bi alayhi salam dafa nekkoon ku teel min miin jaamu yàlla ba foo ko fekk mu ngi xañcu yoon wu koy permettre ëllëg mu doon ku ñuy ci ab société waye mu nekkoon ku miinoon wéet ci boppam ah ñu laaj waxkat wi ni ko lii lépp ci ban jamono la woon xoolal mu ni ndawam la woon ndax tiflan la wax wa hakaza nu te gaa yàlla yépp fii lañu jaar ci seen ndaw ba am li ñu am tey ca seen boroom damay wax ni nag di nettali histoire bu Seydina Limaamu salaam lu ama ama am solo la waaye ci biir nettali jaar-jaaram yooyu ñun nan la ñuy fexee ba gis sunu bopp ci biir jaar-jaaram yooyu ba mën ko cee roy malgré li ñu tuddee al inaayatu rabbaaniya nga xam ni moo ko doon accompagner di ko orienté te lépp ànd ak ndimbalub sunu borom ci sang bi xoolal koo xam bu daa dox ba dëgg ab sobe dafay taxaw di jooy ba féeg raxasuñu ko du noppi kon li nga ciy dégg wala li nga ciy jàng mooy nekk ab ndaw warulaa taxa bañ a sell c'est que dox sa ndaw nag dafa laa dégg parce que bu ñuy wax dox sa ndaw du mooy yàllaa tax ñu wax waaye du bañ a jaamu yàlla tax ñu koy wax ndekete yow ndaw mi man ngaa dox sa ndaw te doo mooy sa boroom man ngaa dox sa ndaw te dangay jaamu sa boroom mbokk yi gërëm nañ leen sant leen ci li nga xam te tamit euh, seetaan ngeen ko di faral di seetaan Soodaan euh, TV di gërëm tamit partenaires yi nga xam te ñoo daal di ànd ak ñun fii la ñuy daal di yem ak yéen ci deuxième édition bi deuxième numéro bi troisième numéro bi incha allahu rabbi jàmm lay euh, bu sell ba te yoof la ñuy daal di dem incha allahu rabbi de Dakar commune Yoff commune Barni, Dakar demdik. Dikk confection Warf CO Access Global nous sommes Sodan TV ci 144e appel Seydina Limamou Lahi alayhi salatu wassalam